ñuy wax ci développement développement et man dama gëm ni euh, développement mënul am sans sécurité sans stabilité sans paix. Mhm. et problème yi ñuy am ñun en Afrique mooy toujours mal gouvernance politique gis naa léegi nii le ministre des affaires étrangères mu ne li xew Mali c'est un problème politique elle a raison boo xoolee de de de de la Somalie au Sénégal bande boobu pratiquement tous les pays. insécurité bi yëpp politique a ko jur. yëpp. Mm-hmm. politique la problème démocratie élection coup d'état ñu renforcer ñu renverser créer créer euh, am instabilité politique les mu am mu am greffage les les mouvements terroristes mm-hmm. depuis dix neuf cent entre dix neuf cent soixante dix neuf ba dix neuf cent quatre vingt neuf la guerre en Afghanistan les jeunes algériens yi fa demoon ñëw après Algérie ils ont créé des mouvements islamistes avec le fils jël élection législative yi foofu noonu ñu tere leen jël exercer le pouvoir ñu créé benn mouvement group armé di xeex créé GIA GIA bi leen poussé ñu ñëw Mali GIA moo créé GSPC moo créé Moujao moo créé AQMI moo créé Ansar Dine moo créé tous ces mouvements yi ngay gis nii boo xoolee également ce qui s'est passé en Libye avec la mort de Kadhafi et ses conséquences la déstabilisation du du Mali le Sénégal avec Casamance au moins là euh, s'est stabilisé mais aujourd'hui le président Macky comme tu la vu mi ngi ñëw pour nekk président euh, Union africaine mu am tâche problème yi am Mali tey jii maa ngi gis ne sur sunu sunu sommet forum bi. Mhm. Mali représenté amu fi représentant. Guinée ñëwuñu le Tchad nga xam ne si en fait les zones de tension amuñu représentant la Centrafrique. pour yow lu tax loolu. moi je pense que je pense que quelque part Macky il a des problèmes avec certains okay. certains parmi nos no nos, nos voisins. Mhm. Ah, euh, kii ñëwul Adama Barrow élection la nekkoon euh, Amballo c'est son c'est son c'est son ami quand il est venu le président de de de, de l'Afrique du Sud ñëw na mhm. ak euh, Bazoum du Niger c'est le premier voyage ici. donc ba kii mi ni en tant que quelqu'un qui doit demain être le président de l'Union africaine nga woote lu toll nii mu am assistance bii nii. c'est un problème et aujourd'hui l'autre problème bi muy ñëw am mooy le Tchad il doit gérer demain le dossier du Tchad le dossier du Tchad qu'est-ce qui s'est passé gars yi ñuy wax réconciliation nationale mhm. quelqu'un comme Hissène Habré nga xam ni fii la nekkoon dee fi et ses parents ñëpp ñi ñi nga fa bokk ci système politique yu Macky war a toog ëllëg ak ñoom pour régler le problème du Tchad et et Pam Ngagne fii gars yi wax nañu Hissène Habré euh, Covid moo ko rey mais abre Covid reyu ko hmm. Habré mi ngi nekk kaso ñu jële ko fa yóbbu ko Cap Manuel mu def fa douze jours ñu jële ko Cap Manuel Macky joxe instruction ñu yóbbu ko hôpital principal il était avec son épouse ak trois gardes du corps night day naka lañ mën def ba ñooñu duñu ñu am Covid médecin yi wax jabaram ne ko demal nga def test Covid mu def test Covid y a rien les trois gardes yi nekkoon ak moom amul kenn ku ci am Covid ba bi muy décédé paa bi dafa amoon insuffisance rénale je le di ici e les le, le pouvoir en place s'il pense que aujourd'hui le problème de Hissène Habré est terminé il se trompe parce que Hissène Habré Sénégal moo ko accepté yore ko fi mu ñëw en asile légalement dans ce pays ñu dugal ko ci ay procès avec la violation de la constitution et tout ce qui s'ensuit sa femme depuis des années trois ans muy toog jëkkër ji dafa feebar da dugg na ci toilette daanu loxo bi damm on a tout fait gars yi toog seetaan ko ba mu deetee seen loxo aujourd'hui Macky su demee Tchad comment il va regarder les Tchadiens ses parents qui sont là-bas mi ngi mel tey benn président bu def dara Macky Sall Macky Sall dem benn dëkk wala Abdoulaye Wade benn président def ko fa lu bon euh, mu ñëw fii kooku ñëw bëgg a jàkkaarloo ñun mi am dañ am ñëg ñu ko xool d'accord est-ce que comprendre nga et aujourd'hui c'est la situation boo xam te ni moom la Macky nar a hérité te dossier ni ça à cœur les Français parce que les Français ils veulent saper sur le sur le Tchad pour gérer la stabilité de la région avec le G5 Sahel alors Aliou dégg nga li nga xam ni wax na ko mais boo dégloo discours euh, président aussi nga xam ne mi ngi ci campagne ci union